docteur Seydina Oumar Seye euh, maa ngi lay nuyu. waaw ñu leen di fay. alors euh, sa xel màcc ci lépp lu jëm ci wàllum euh, koom-koom ñu gis nag ni emprunt yi jamono ji daanaka bëri na donte nag jot nañoo fàttali wala sax préciser ñu ni ci weeru février la woon du juin waaye wàllum dette ci réew bu mel ni Sénégal ana lan la mën a jur. waaw en fait dette moom ci niñ ko mën a jàngatee mooy couteau à double tranchant la c'est-à-dire que tey jii boo xasee ba leb bor bi boo ko jëmalewul fa nga ko war a jëmale waaw bu fay ñëwee day metti mais ñu bari li ñuy lebal euh, ragal ci dette mooy mu désarticuler li ñuy wax les finances publiques ak les macro économique mooy lépp digg yi nga xamante ni tey jii mooy tax bu ñu tabaxee budget li nga xamante ni tey jii moom mooy dépense yi ñu war a def ak fan war a jëlee xaalis loolu la gouvernement bi di nekk di def ñu tuddee ko un programme d'emprunt parce que léegi il faut ñu rappeler ay budget programme lan yor te programme d'emprunt yooyu yëpp dafa mel ni ab benn kees foo xamante ni tey fala la état di jëlee lépp lu ñu war a def lii xaalis la laaj xaalis boobu nan lañ koy amee donc budget foog ñuy fàttali kii du benn xaalis bu bari ay milliards yu président Diomaye Faye def ca palais ba saay su soxlaa rek ubbi tiroir yi daal di xëcc joxe déedéet. day am yoo xamante ni bu nu voté ni ah lii di app kii lii wëg lii war naa ñëw lii war naa jële fële lii war naa jóge fee ñu ni nan dugal lii ci mbay mi nan dugal lii ci santé nan def lii nan def lii loolu mooy budget maintenant nag waruñu ko defee lu ñu neexee dañ koo war a d'accord ñun ñëpp ñun koy d'accord ñun ñëpp mooy dañuy dem ca pencum ndaw réew yi ñan fa yebal daa daal koy voté buñ ko voté mu nekk loi nga xamante ni lii moom mooy permettre ñu ni ah at bii di ñëw de dinan mobiliser temps ci ay ressource war nañoo dépensé temps war nañoo def lii donc foog ñu rappeler rek nii tey jii programme d'emprunt yooyu ñuy tuddee ay trésorerie fu ñuy jëlee xaalis lenn rek lañ ci tax a jublu moom mooy financer le budget te financement budget boobu lenn rek ci tax jublu mooy ñoŋal lépp loo xamante ni mooy besoin wu atteinte population yi c'est-à-dire ay dépenses yoo xamante ni priorité la pour affecter population yi ba mbay mi ñoŋ mm. ba njëg yi wàcc nga xamante ni santé dana amaat ainsi de suite mais da ngay fàttali ni depuis la grande charte de mille deux cent quinze xam nga loolu ay loi des finance la ay tënk la yu ñu xayma nii nii kat lan war a tënkee budget nii leen war a defee nii leen war a defee lii donc li état bi di leb lu doon koo teg ci yaama neex wala ñu koo def loo xamante ni tey jii budget bi c'est la loi des finances moom moo prévoir état wala autorisé wu ko tey jii muy dem bu nga xamante ni ci budget bi bu ñu amee lii bu ñu amee lii waaye lee lañ war a jëfandikoo li ci des fu mu koy jëlee. loolu mooy levée d'emploi yi nga xamante ni moom moo xew fan yi et pour coller actualité bi comme ni ñu ko waxee juin ak yeneen yi ñu ci bari ñu ngi ŋàññi état ni ah waaw moom lu tax muy leb lebleel tel parce que ci loi des finance deux mille vingt trois dix parce que dañ koo tënk quinze décembre dañ ko defoon deux mille vingt moom mooy porté ñu ni bu ñu xaymaa atum deux mille vingt quatre fan la ñuy jëlee lii fan la ñuy jëlee lii lan lan ciy def luñ ciy tabax luñ ciy def loolu lañ tuddee investissement donc loolu lañ prévoir ci deux mille vingt quatre léegi ci kaw loolu gouvernement bi day décider daa di affecté de manière souveraine ni man lii fii laa koy jëmale lii fii laa koy jëmale waaye loolu nag ma rappelé ko assemblée nationale lañ koy voté donc bi ñu voté en deux mille vingt trois mooy budget bii ñu nekk di dawal nii en deux mille vingt quatre cours d' exécution. Hmm. dañoo autoriser gouvernement bi ni ko yenn yi nga xamante ne amuñu ko mën na koo uti ji. or comme fii ñuy uti xaalis amul moyen dañ lay aal suba nga fay bor ba teg ci dara. mooy emploi yi ngay tudd nii léegi nag loolu ça nu permet ñu daal di def li nga xamante ni moom mooy ressource de trésorerie mooy am loo xamante ni saa suñu soxlaa tali saa y suñu waree taal lamp yi saa suñ waree fay dette intérieure pour entreprise yi taxawaat saa y suñu waree def ci njàng mi wala tel wala tel ñu mën koo jëlee foofu ci li nga xamante ni amuluñ ko suñu bopp ndax saa suñu ko investir suba bu juree njariñ danañ fayaat teg ci bor bi loolu moom mooy de trésorerie yi nga xam ne ni am na yenn à moins et long terme te pourtant loolu day malgré lépp yi nga avancé nii nii yegg seegum ci xaaj ba. Mm-hmm. parce que ci budget bee passé nattaloon nan état bi ni ko mën na emprunté ba toll ci deux mille cent trente milliards. donc loolu lu bari la te loolu leen leen ci jublu nga am yenn leb yoo xamante ni pour projet yu mag yi ñu war a def yeneen yi pour programme yeneen yeneen xeetu leb moo xam tey jii bu mbas mi ñëwee wala yenn dépense yoo xamante ni tey jii ñu ngi jëm ci hivernal bi wala tel ak tel même ba ci li nga xam ni moom la ñuy ŋàññi état bi mooy surfinancement mooy tey jii ñu am benn gafaga woo xamante ni y des incertitudes wala dafa am état liñ naan day def dans la prévision dans l'anticipation parce que boo xoolee nawet bi dépense ñi nga xamante ni moom lañ jógee ci feet yeeg yenn éléments yi dafa am ay imprévu yoo xamante ni foog état di am xaalis boo xamante ni dina ko permettre lu tëb dana mën a def lool et chaque fois dara ñëw ñu war a wëraat àdduna pour wuti ji xaalis ndax monde bi ñu nekkee incertitude la bari na ay yëngu-yëngu yoo xamante ni ñëpp ñu joxe xaalis duñ ci gaawee noonu moo tax ñu def surfinancement boobu ngay gis donte mii mu ngi doon wax ni ah waaw xool leen ni ngeen di lebe mooy li ñuy tuddee viabilité de la dette c'est-à-dire que saa suñu amee ñu bañ koo def ci ay dépenses de prestige def ko ci ay dépenses prioritaires notamment d'investissement ndax xaalis boobu day tabaxaat yeneen xaalis yu ñu permettre ñu fay mais finalité bi yëpp lenn rek la mooy satisfaire les besoins les attentes de population donc pour répéter rek emprunt yi ñu nekk di def nii yëpp yu ñu contracté ci au niveau des marché financiers la lan la ñuy wax marché financier mooy l' épargne nationale ou internationale pil ji jee def mooy bi nga wax ni UEMOA dañoo dem foofu def ay emprunt obligataire mooy état day engagé signature am ñu jox ko xaalis am na yuñ mujjee def ci bourse bi donc loolu yëpp day wane ni rek Sénégal ba tey mu ngi am kóolute sur les marchés financiers tey jii kii kat bu lebee wir na ni dana la fay mooy la signature waaye loolu lenn moom moo tax mu gaawantu ñëwaat nii ndax tension yi amoon ci ginnaaw muy xeex bi amoon élection yooyu yëpp képp ku daan joxe xaalis ka doon ragal fii xaw ma nu muy demee dañ koy jëlee mooy fu ñu daan dem pour ñu jot day metti léegi nag boo gisee ñun ñëpp ñu ñëwaat parce que Sénégal daa retrouver sa confiance bi nga xamante ni tey jii auprès des bailleurs kii dara am xaalis parce que le climat des affaires jàmm nga fa wala tel tel tel te ñu ngi am pétrole ak ñu bari dañuy ubbi vannes yi mais li ñu nekk di def nii yëpp ay décret la wala ay convention yoo xamante ni loi des finances daf ko nangu ci article deux bu deux mille vingt quatre donc du loo xamante ni nii rek dañ koo teg ci yaama neex wala tel mais période bi moo ko laaj ndax mois de juin gouvernement bi rek daanaka ci li ñu tënkoon ci li ma lay wax ci deux mille yee ñu ko nattaloon nga ma ni dañ koo voté daanaka xaaj bi jëlaguñ ko mooy ci les dépenses à lever malgré période d'intense dépense comme ni ma ko waxee muy arrivé à maturité des marchés publics mhm. c'est-à-dire que yenn bor yoo leboon àpp fay di jot nga war a amaat fee yi jàll ak dépense hivernale yi nga xam ne da nga ko war a prévenir donc il faut que état dem uti ji xaalis pour régler les dépenses urgentes mobilisation des ressources. très bien kon su ma la déggee mhm. oui su ma la déggee maanaam euh, dette mënta ñàkk te pourtant euh, Macky Sall ba muy dem ci passation de service bi euh, jotoon na leen bàyyi lu toll ak cent vingt milliards ci koppar ci compte BCEAO. waaw mais wax nga dëgg dette mënul ñàkk même dëkk yi gën a mag ci àdduna nii il faut pas ñuy. fantasme ci dette bi comme li ñuy wax non non dette dette mel ni som si suñu defee bor suba Sénégal day tëj kenn dootul fayeeku kenn dootul lekk déedéet économie pour muy fonctionner dañ ne da ngaa soxla sept mille milliards waaye sept mille milliards yi lii dina jóge fii lii dina jóge fii lii dinañ ci def lii mais boo xoolee fi nga mën a am yëpp des na benn gabu deux mille boo xam ne ah lii kat foog ñu dem ci partenaire technique yi lii foog ñu donc boo jëlee un budget de l'ordre de sept mille milliards ku lay wax ni non Macky sàll bàyyil na ci trois cent et quelques milliards lu am solo la waaye taxul ñu régler li ñu war a régler ndax hmm. dëkk ak économie noonu lay fonctionner lii nga am waaye soxla nga lee ci li nga am laneen li foo koy jëlee mooy lii ñu nekk di def nii donc dette bi encore une fois du lu bon mais utilisation dette bi moo am solo mooy pas ñu def ko ci ay dépenses de prestige mais des dépenses prioritaires surtout investissement investissement mooy lan ñu tabax teg foo xamante ni loolu buñ ci pare ci bor boobu la muy génne day fayaat bor bi loolu moom mooy permettre ñu atténuer li ñuy wax service de la dette mooy le loyer de l'argent bi nga xamante ni tey jii parfois day sonal Sénégal mais encore une fois les cash flow yi nga xamante ni moom la ñuy jëlee pétrole ak gaz yi di ñëw bu climat des affaires bi mooy la quiétude bi nga xamante ni moom lañ xamee Sénégal ak la confiance retrouvée auprès des partenaires techniques auprès des bailleurs ak investisseurs yi loolu la ñu war a fexe mu continuer parce que économie incertitude baaxu ci fa nga war a jëm ba euh, nga xamante ni leerul baaxu ci mooy cacophonie bi nga xamante ni moom lañ souligner au niveau de l'Assemblée nationale parce que yaa ngi wax budget loi des finances le président Bassirou Diomaye Faye wala l'actuel gouvernement de monsieur Ousmane Sonko amuñu benn droit xëy ni bon nañu yóbbul journaliste yi tel nañu jël li yóbbu ko fii lépp xaalisu Sénégal dërëm bi gën a ndaw fu ñu ko war a dugal ñun ñëpp ci war a d'accord ñun ñëpp ñu ciy d'accordé mooy budget bi dañ ko yóbbu au niveau de l'assemblée voté ni lii santé lii mbay mi lii bu buñ ko xaatimee voté looloo tax ngay dégg ñu naan loi des finances alors justement ñoom lépp lu ñu nekk di def nii rek dañ ko tënkoon ci loi des finance bii di nekk di daw nii Mhm. alors bu ñu nee euh, koom-koom ne finance euh, gis nañ euh, jamono ji bureau de l'Assemblée nationale bi nga xamante ne majorité bi di député wu Benno Bokk Yaakaar dañoo lank nag ne du ñu amal lii di débat d'orientation budgétaire yi nga xamante ne jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum finance moo ko waroon a amal nan nga jàngatee situation boobule. waaw loolu ab benn contrainte la à lever blocage bu mag la boo gisee li ñu développé nii yëpp mooy leb yi ngay wax nii. xam nga tey boo gisee ñii nekk actuelle autorité yi am sañ-sañu dem leb parce que duñ koo tënkoon ci budget yële ni leen mën ngeen a dem sur le marché financier man ngeen a dem au niveau de la pourse man ngeen a dem par exemple outil du eurobond ndax ñun kat wax na ni lii mën nañ koo jëlee tel dañ koo nattoon xaatim ndawal pencu ñi toog ci pencum ndaw réew yi d'accord ci waaye tey bu loolu amatul suba mën ngaa ñëw rek ñu ni voilà nañ jël dëkku diw defar ko bàyyi ñeneen loolu la ñuy bañ moo tax tey jii la loi des finances dañ ko war a voter à l'Assemblée nationale donc ñoom tey jii bu ñu fayiree à leur mission wala devoir c'est problématique parce que tey bu boobaa da ngay gis ni tey xaalis bi ñuy dugal wala lu ñu war a tel duñ ci am lecture donc loolu lu ñu war a ratifier la et il faut oser le dire en tout cas pour ma part man dama jàpp ni waruñu def loolu parce que débat d'orientation budgétaire moom mooy dimbal ñu xam ni programme yi kat fii leen war a jëlee lii lii fii la war a dugg nii leen bëgg a yore Sénégal ci benn projection de trois ans parce que depuis norme UEMOA yi léegi nekkatul ci ay benn dépense prévisionnelle pour une anne mais dañuy teg ay projection ñu tudde ko programme. Mm-hmm. donc je pense très bien que tey jii bu demee ba député yi taxaw ni ñu ñoo lànk ñëwalul le lenn moo fi mën a dem ñu def par ay ordonnance loolu bu boobaa. c'est juste un débat politique bu lay indi est-ce que tey jii y la démocratie telle mais encore une fois parfois il y a des situations où il faudra des despotes éclairés c'est-à-dire que des mains de maître parce que fii ñu toll nii le Sénégal est à la croisée des chemins pour les générations waratu ñu dem ci politique politicienne yi parce que lii ñu jublu nii xam nga ni ñëpp a jox bopp Sénégal mm. contexte géopolitique bi def de telle sorte que jox nii yëpp parce que climat des mu ngi fi waaye am nañ pétrole ak gaz donc il faut ñu permettre aller vers l'essentiel amorcer vrai développement bi mooy lépp lu ñu nattal ñi nekk ci ndaw réew mi ñu teg ko ci lu wóor mu bañ a nekk loo xamante ni ñoom ñoo koy def ni ñu ko bëggee donc tey jii bu benn yoon député yi taxaw di kaas suba bu fekkee dañoo indi ay ordonnance parce que état mënul taxaw di xaar suba yow ak man dañ ñoo war a defaral tali dañ ñoo war a taalal lamp yi la police doit être là service civil day xaalis boobu est-ce que dañuy xaar ba koroog tey jii mooy impasse politique bii ñu am ñu régler ko mënul nekk loolu ab devoir la boo xamante ni tey jii les députés je suis je suis désolé mais mesuré wun la portée des finances publiques parce que comme ni ñu ko souligné loi des finances mooy benn cent franc Bassirou Diomaye fay la président moomu ko pour maye ko wala pour def ci lii lu dul ñoom ñoo ñu ñoo ko ci autorisé. Hmm. donc il faut indéniablement ñu dem ci débat d' orientation budgétaire ñu xam kat lamp kat. instant yi omicron baa ngi ñëwaat est-ce que doo leen dolliwaat tuuti ci santé bi ndax wóorul. ah instant yi kat yàlla menace jihadiste ndax du ñu dolli ci kii bi ñeeri déedéet bon dëkk bi am na jàmb plutôt nañ ko dugal ci sport wala nañ ko dugal ci pencum euh, liggéeyu xale yi. loolu moom mooy loi des finances. Hmm. donc ci pencum ndaw réew mi arbitrage yoo xamante ni. Hmm. duñ ko teg ci yoon. fa la xewee ci pencum ndaw réew mi waaye tey jii lan la ñu mën a def rek ngir mën a sukkali li nga xam te ni mooy kom koomu réew Sénégal. waaw li ñu mën a def rek moom mooy euh, approche endogène bi ah ñun bokk nañ ci ñu gëm loolu ci ñu ci bind liggéey ci. l' approche mm-hmm. endogène pays de l' Asie de l' ak mm-hmm. ñeneen ak ñeneen mooy tey jii il faut ñu xam yoo xamante ni tey jii lépp luy désarticuler nos finance publiques. ñu lutter contre la corruption et la transparence parce que li ngay seetlu mooy dañ naan la am nañ benn budget de sept mille milliards. ni le taux de croissance bi tel mais bu ñu mobiliser ressources yi. fépp fa mu war a dem parfois les gens ont développé des techniques malsaines yoo xamante tey xaalis ba du dem fa mu war a dem di ko finalement day am détournement d'objectif da ngay gis ni sept mille milliards lañ teg waaye xaalis boobu génn na mais yëgsiwul ci askan bi donc corruption moo koy indi détournement d'objectif moo koy indi transparence mais à chaque fois bari nan ay organe wala yenn agence wala ñoo xamante ne ñooy saytu loolu mais li ciy def mooy il faut ñu am ay euh, des des mesures coercitives et dissuasives mooy loo xamante ni nit bi du sax xalaat détourné wala telloom la ni loolu mooy gën a gaañ askan bi boo xoolee ñun li ñuy am li ñuy liggéey mais li ñuy yàq ak li ñu dul jot loolu bu ñu fexe ba fànk ko dana jur njariñ loo xamante ni croissance buy law teq ñëpp la mooy croissance bi nga xamante ni FMI moom la ñuy joxoon ñu jublu fa mooy croissance à deux chiffres bi nga xamante ni panier ménagère bi dootul wax croissance na ne se mange pas donc pour ñun suñu dëkk yi bu ñu xasee ba assainir les finances publiques jaarale ko ci yoon ba ñu dugg ci ay dépenses de prestige de la qualité ñu bàyyi loolu mais dem ci li nga xam ne mooy dépense prioritaire mais surtout que sénégalais yi tamit serrer la ceinture ci yenn éléments yi ñu xam ni pour des générations futures et loolu du ay horizon temporel yu soree sori mais c'est dans cinq ans dans dix ans pour que Sénégal demain mu nekk benn îlot de paix mais tout simplement de bien-être et de croissance ndax potentiel bi mu ngi fi te période boobu la ñu toll donc il faut vraiment que ñëpp defa table rase ñu ñëw ci situation yi yoo xamante ne dinañ ni génération bii de suñu génération maak yow ñii fi nekk ak l'actuelle opposition bi fi nekk ñu ni ah génération période les années deux mille ba tel ñoo amorcé woon développement Sénégal yóbbu ko tel te loolu c'est c'est important suñu génération waruñu waruñu rate raté cloche boobu. très bien docteur Seydina Oumar Seye jërëjëf may fàtti rek ne sa xel la dafa màcc lépp lu jëm ci wàllum koom-koom ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. merci c'est moi. a baax merci c'est moi. a baax.